وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما baat mbokk jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bu ñu sant yàlla dooli sant yàlla bu baax waaye di santat yàlla mi ñu may kàttan ma ñu fekkee bañ dellu si di def waxtaani fajar di wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi daiman abada alhamdulillahi kasir alhamdu ala kulli haalin di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak saxaabaam yi ak képp kam yaa ngi tabe sunam bi ba ilaa yawmal qiyaama di ñaan boole si ñooy yàlla ñu xëy jàmm indi ko mi jaamal yàlla fa jaamal ñi feebar nekk ci kër ci lopitaan bi waaye fu waaye nekk di jàmm yàlla mi saafara yàlla boole may aafiya julli julli allah yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel def seen bàmmeel mu nekk la xale fiyaa eko teg leen si yoon siraat mustaqim mu ci si fitna musiba balaa seytaan warsagaleen xam-xam warsagaleen liggéey warsagaleen àndandoo yu baax jigéen yàlla sàmmal leen ñu def rabbana fi dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بوك يلي في تداري محمد صلى الله عليه وسلم جانا لك ما بو بلي كي يدلوات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جار جارم أكنك لدون دون أك صحابي صلى الله عليه وسلم كنا بيغا حمين تحاون نيتيون ولا وحنا نيتيون دينا كيبكو حمين أمل أملناكو آخر نانيو pour feeku wala ma feeku aaxam boobu mu ne amee naa ko ko bi mu ko waxee ñetti yoon day saan saxaaba ñëpp toog ñëpp ne bam bam ko waxee ba mu des benn saxaaba boo xam ne dafa jóg kenn si saxaaba yi mu dal di jog ku ñu okaasatu bon muxsin mu dal di jog taxaw ne yonent bi aleyhi salaam mu ne maa ngi waat wala si ki nga ki nga xam ne moo ma jur yooyu rasul salaa salaam maa ngi waat di waat ne yow salallaahu lowe annaka naasattanii martan baadamarranii maakuntu kaddim muum boqoqeensisanii koo sufeekoonii waaloo koonaan nyaatiyoon nu kan dhuma jiru kurfaa waye wanti akka yoo waaye koow kookoo nyaatiyoon haa luul matahaa ma jiru muna koo Jamil bini damee binnee kaawunsii cazbatul badar maanaam harii badar. suma gilem bi ak sa gilem bi ñu ngi jigeñante woon ba riisuwante mu ne nga ekkiti yar bi nga xamante ne moom nga day cawee sa gilem bi ba mu koy pare pour door gilem bi nga door ma ko xawmoo nda den ko tëy wala tëyuloo ko yent bi alei saa salaam ne ko yaal ya rasulallah mu ne ko yaa Okaasa eh, ey yow Okaasa an yataamada an yataamadaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi darab mu ne yaakaar ngane ne yonent bi sallallahu sallam dina tey pour doorla faqaal fa qaal nabi sallam li Bilaal comme ak ukaasa wax na lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam bugg cee def benn werante aman na loolu am na te yëgu ko waaye comme ukaasa wax na ko moom mu woon ko ne moom du ko defu ko si maanaam nekkul xam ko tey mu daal di ne bilaal yar boobu nga xam ne moom da yonent bi saa sallam daan dooree gëlémam di oo bilaal ne ko demal si kër ga nga dem fekk fa Fatima nga ne ko mu jox la yar boobu nga xam ne moom laa doon dóor suma naaqa bi muy gélem bi bi laa dali jëm si fatima waxu ko bi mu ko waxee fatima mu ne ko waaw dafa am koo xam ne yéen bi salaa sallam yar bi daf ko daloon te mu bugg a féye ko yéen bi salaa sallam yoone si ma pour ma ñëw jël si ko fatima commencé di jooy ne kan ay fay konteeg suma waajur kan ay fay konteeg suma waajur bilaa dal di jël yarba dal di ko indi dal di ko jox okaasa bi mu ko jox okaasa suma qaala salaa sallam yaa okaasa idrib in kunta daariba mu ne ko aca okaasa dóoral su fekkee da ngay dóoral waaw comme dóoro naa la dóor ma okaasa dal di ko war yaa rasulallah darabtani wa ana aarun an sawbi yooyu bi maa door nag suma buba bi suma diggi gannaaw bi dafa feeñoon maanaam buba bi dafa génnoon bi nga xam ne yaa ngi gis suma diggi gannaaw bi bon suma laay door tamit ah boo ta nekk si kaw mbuba bi di nga war a génne sa mbuba bi allahu akbar abubakar dal di jóg na ko yaa rasulallah xaaral ma ñëw sëga okaasa door lu ko ne mun ne ko déedéet Okaasa jotew te yow man la joteel Omar ñëw waxti seem Ousmane ñëw Ali ne yéen saa salaam bàyyi ma Okaasa ma dog boppam bi ma dog baatam bi moom Ali moom macha allah am doon caaxaan mu ne ko bàyyi ma Okaasa rek ma tàggale boppam bi ak baatam bi ak yaramam bi yéen saa salaam ne ko déedéet di yow la jotee man la jotee salaam si fayam ak wàccee boppam fa kashafa rasulullah sallam an sawbihi mu daal di ekkati mbubaam bi yi ñep di joy fa sahad muslimun ñom ñep ñu dal di yuuxu di joy ñep a ngi jooy gis okaasa tiye yar bi pour wara feyeku si yentu bi ali sallallahu wasalaam sahaba yi ki mu tiye sa bop ñep nañ set image nañ imagine na seet jamono melokaan boobu naka la moo mel si su fekkee si ñun la woon si ko xam ne kuñ fonka kuñ bugga nekk suñ kilifa nekk suñ yëpp ñu war ko def loolu naka la ñoo si waxtu boobu loolu moo daloon saxaaba yi bon saxaaba yooyu amut kenn kenn kenn ku leen gënoon a bugga yonent bi aleyhi salaatu wasalaam amut na luñ defut si diina rek ñu waruñ ko def te yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne gis na saxaaba yi dañ mel ni ay bidéo waaw suñ buggee gën a dëkku rek suñ buggee tegu si tegu si yoonu siraatal mustaqim rek nañ seet si ñoom nañ topp si ñoom saxaaba yooyu nag ñooñu gënoon a bëgg a yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax na si njàngaleem rek lañ nekkoon mosu ñoo utee dara ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ukaasa daal di téye bant bi et bi pour fa war feeku waaye Okasa ndekete am na moom lum planoon lim bëggoon loo xam ne lii rek moo ko mën a may waaye ñëw pour fekkonte yonent bi sallallahu alayhi bi sallam doru ko de waaye dafa am Okasa lim a gis si diggi gannaaw bi yonent bi alayhi salaatu loolu la doon yoon yonent bi sallam dal di génne mbubaam bi Okasa di xool si diggi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi nga weex Okaase la di ñëw ba jege si rek saani bant ba dal di foon diggi gannaaw yonent bi sallallahu Okaasa loolu la bëggoon dal di foon diggi gannaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa qaal fidaaka wa ruuxi ya rasulallah man yutiibu qalbahu an yaktasu minka moom Okaasa ne ko maa waat ci suma bakken yooyu yéen bi salaa sallam kan kan kan mu am xol bu bon wala soxor ne dafay faykonte yow déedéet du man de te goma ne doomi aadama am na xol boobu koo xam ne jullit la mu ne ko innama faaltuhu rajaan an yamassa jismi bi jismika asharif mu ne dama ko def daal pour suma yaram bu doyadi bi riisuwante ak sa yaram bu tedda bii sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar mu ne lii laa si bëggoon waaw suma yaram bu doyadi bii ma riis ko wala ma raay ko si sa kanam si sa kaw yaram bu tedda bii sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu may ñaan yàlla si loolu yow yaxfazni rabbi bi xurmatika min annaar di ñaan yàlla pour si li ma def nii si sa barke yow yonte bi alayhi salaatu wasalaam yàlla muccal ma si safara ngeneel boobu nag benn saxaaba amu ko woon foofu ku dul uqaasa incha allahu si darse bi ñëw dinañ ko jekkali pour ngeen xam macha allah lan la yonent bi salaa sallam wax bu mu defee lii kon yàlla na subhaana taala bugga bi saxaaba bi ba toppa si sunnaam bi toppa si njàngalem bi yàlla ko yàlla def si ñun ba ñun ñëpp ñu bokk mën a bokk ak saxaaba yi eh, arjana ndeg seen bugga bugga ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak toppa sunna yoonte bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ngi len ko jagleel arjana bon yàlla ñu yàlla boole ak ñom yàlla fi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu alayhi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin